waaw xam nga sañoo ko def politique parce que ki def jubóo bi du politicien moo tax sañoo ko sañuloo ko sañ Mountakha du nitu caaxaan te gëm naa man ne ba ba may gis lu uuteeg li ma xalaat mooy sëñ Mountakha du dox dara dajale ay nit jubale leen ñu naan politique la parce que bu doon politicien la ñu ne politique la mais moom nitu diine la nit ku sell la waaw dafa jot dafa dafa jot doo ko am waaw dafa jot parce que bu fekkoon ne politique la yi ci topp du ci topp duñ ko def vendredi samedi dimanche ñu génn xalifa non non non non moom kay dag ñaan nañu ñaan jubóo bi sax ci ñoom ñaar waaw di nga sonn Sénégal a mel noonu senegal moom mel noonu Sénégal mënoo fexe fexe fexe ba nga tàllal perkaal ne daa weex am ku jogul ca côté ba ne weexul daa ñuul suñu dund la am na ñoo xam ni contraire la ñuy dundee mais nit ku baax jullit daal day rafet njort lépp lu la yàlla wan gis jàppal ca loola soo gisee contraire ba doo ko wax a ah, foogeewu ma ko woon nii dama yaakaaroon ne lii la mais nekk maam Abdoulaye la ci xolam ak xelam makki Sall la ci xolam ak xelam sëñ Mountakha a ko def kenn mënul firi gént yi nag gëm nañ ko ñoom ñaar muy Macky ak maam Abdoulaye gëmuñu ko yëpp amul maanaa li am maanaa daal def nañu ko nit ñi gis nañu ko la koy confirmer mu ngi ci kanam confirmation baa ngi ci kanam benn feeñ na xalifa Sall génn Karim bu génnee bu ñëwee mu jeex te Karim ngi ci yoonu yaakaar na waaw xam nga xalifa bi mu génnee xam nga ne dem na Masaalikul Jinaan du yënga lool kon dem na Touba hmm. ndax sëñ Touba ñëw na Masaalik mooy sëñ mooy sëñ Muntaxa kon moom bu paree génn mu ngay fay daal sëñ Muntaxa di ko fullaal wan ko ne ko li tax ñëwuma woon mooy fa ma nekkoon a tax waaye bi ma génnee damay ñëw jubal si ndax ñëw gi du weer ñu yëg ne jubal na Masalik kon nekk fa mu nekkoon ci prison ba xelam a ngi ci Masalik loola mu dem Touba Masalik gii Touba sëñ Bamba ñëw sëñ Muntaxa sëñ Bamba la kon bu fa demee mel dem la bi ci des Xalifa Sall sëñ Babacar lañ ko tuddee moom que raw du turandoom rek la jubal sëñ Babacar moom lañ ko tuddee baayam sëñ Babacar lañ ko tuddee mu jur Xalifa tuddeewaat ko sëñ Babacar. doomu sëñ euh, euh, nu mu tudd Seydi moo uuf xalifa ñu tuddee ko doomu Seydi Hadji Malick muy sëñ Babacar alaaji Malick caatam caatam mooy alaaji Habib doomam bu jigéen bu ñuy wax Nafisi moom la xalifa dencoon am na ci mulaay kon ci kër gi la bokk sëñ Babacar yi turandoom da daan wax bi mu nekkee ci prison bi ne bu sama turandoo pare ci man ma génn kon bu nit diwee sama sëriñ yow nga ne yi sama sëriñ walla nit jàppale la boo génnee war ngaa jubal foofa demul tiwaa woon dafa siyaari turandoom waaw dafa seeti turandoom pour wan ko ni ko génn na nee na ma bi ma demee ba ñu toog juróom benn nit lañu dañuy dem six personnes la nee na bi ñu toogee dama ni sëñ Babacar am na ko manqué ci ñun nag muy Iran waaye nañ ko ci boole bi mu xëyee leen di la ma o 10h26 wax ma ñëw naa sama turandoo ziar naa wax ak man li muy wax ak man donc dem seeti turandoom ayul am nga génnee kaso seeti sa sa coro jubal ci sa coro kay dara nekku ci ku ne ak nga bëgg sëñ Babacar la bëgg. Mhm. non danga naan jaamu yàlla yi rek. waaw waaw <clears throat> xam nga. ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun daa am ñu xool yonent bi ne innahu la majnun kii dof la yàlla ne ko boo tontoo dëggal leen de yow xam nga ne dofoo anta bi ni'mati rabbika bi majnun ba àdduna sosoo ba léegi soxna si mbaax mosoo koo gis te amul ñu ko contre mënoo ci dara kaaba gi am na ñu ci dul julli jublu waa loo ci man dañ cee mën dara yenent bi am na ñu ko dul tudd loolu aada sunu borom la moo bindee àdduna noonu mooy doxalee àdduna am noonu gis nga lu ñëpp ne ëskay amul mais am na philosophe yu wax ne yàlla amul am na philosophe yu wax ne yàlla amul loo ca man am na ñu ne yàlla am na mais gëmuñu ko loo ca man waa ndem yàlla lañ nangulul waaye waaye waaye waaye ñàllaan ko loon sëñ Tuubaa seeni sët duñ fi jóg waaye ñi ko nanguloon seeni sët duñ fi jóg gis nga am na loo xam ni ku mu naqari rek dañ la koo joxul hmm. waaye bu delloo ci yow wala sa baay wala mu dellu ci sa maam nga jël yàlla lu ko jomb ci jaam yàlla buñ ko tabaxaloon jumaayi jamaa est que jomb na yàlla ku moom jamaa du moo liggéey jamaa moom jamaa te wa illallaahi turjawul umur yàlla dañ ko war a delloo lépp yow ngay gis ku tabax palais de la république ñu naan palais bee tabax immeuble El Hadj Ndiouga Kébé nga nangu yépp seen taar te nit doo nga fay dëkk du jullikaay dëkkukaay la nga tabax immeuble bu ñëpp di seetaan di ko luy ñu ciy dëkk ñu tabaxal yàlla ngeen di teguñ ko fenn yow kon xamoo li xew te yàlla ne xusu ziinatakum indi kulli masjid na rafet boo may julli sañseel sa jaada bi ngay taxaw na rafet peñel sa karaw soccul tuurool parfum taxawal bu yiw fi ngay jullee na setti laab yàlla buñ ko tabaxaloon jumaa yi jamaa réyul ci moom moom moom jamaa maçon yi ko tabax moo leen bind kon delloo yàlla teraanga lu ci ne kër bi sëñ Muntaxa bi mu ñëwee ci jumaa ji la fanaan est-ce que fi la daal fanaanu fa de def ko fa de mbàkk mbàkk benn mbindeef du fa fanaan wa anna al masajida lillahi fala tadoo maa lay xadal jàkk yàllaa ko moom nu rafetee baax na alalu yàllaa alalu yàllaa inna laa jamilun yuhibul shamal yàlla dafa rafet moo tax mu bëgg lu rafet ah kon naa yeesu rek mooy lànk xam nga xam nga mas naa def émission maag màbba mi ma wax muy julli ci garab yi xam nga dañ doon damaa dof ñi naan comédien la day comédien rek bi ñuy julli jumaa masaali gisoo ñu ne ci garab yi gisoo ñu ne ci kaw miir yi kaw oto yi nag kon <laughs> comédie bango dañuy wax rek Sénégal a ah, bu ma lee bu ma jàngaliwuloon loolu nu ñu koy defee